su ma ñëwee sama question bu ji ci làmb su ma ñëwee ci diggante Lac de Guiers ak Eumeu Sène bëri nañ fi match nul ñu bëriwaat fii ki nga xamante ni mooy Eumeu seen daan Lac de bii nekk troisième fois bi kombaa bi taxawee gis nañ coow yi ci jot a am bari na coow ah, Lac de Guiers am na nu mu waxee Eumeu Sène am na nu mu tontoo coow li bari na naka nga gisee boobu combat. combat bu neex combat bu métti lay nekk quoi combat bu neex combat bu métti mais combat boobu bon. combat la boo xam ne ah du yomb du yomb parce que Lac am na fu mu ko teg te Eumeu aussi ñëpp xam nañ ne moom mooy ndaanaanu làmb ji waaw donc combat la boo xam ne mais ku si nekk rek am nga loo war a def pour am ndam mm-hmm. aussi Lac rek comme man li may wax rek man Lac laay wax am na fukk nit ñi di xaar sa combat parce que bari na combat la ko wax mu ne du ma toog di ko seetaan sax parce que bëre ba day soof donc Lac aussi moom il a intérêt mu changer façon bi nga xam ne moom la doon indi waaw moom il a. dina yomb. ci à ce que Eumeu Sène ci combat bi mu jugee ak ci bi mu war a dellu si waat mu nekk koo xamante ni mën na koo delloo ci làmb mën na koo génne ci làmb tamit. fii noonu lay demee day dugal Eumeu Sène ci làmb waat wala mu génn ko ci làmb rek mais Eumeu Sène kenn mënu ko àpp kenn mënu ko jugé parce que li ñuy wax dollar la day génn chaque jour xoolal combat yam day génn fu ko kenn foogulee moo tax combat bu jafee jafee jafee jafee xam na te Eumeu ku ko xam jigéen ko ku nekk nga xam ne Eumeu sportif la dafay entraîner comme il le waaw ah, Lac de Guiers ci côté entraînement moom loolu moom mooy Lac de Guiers parce que bari na li ko bàyyi ci làmb loolu la ah, waaw bari lu ko bàyyi làmb ci loolu entraînement la mm-hmm. mais combat daal combat bu neex la war a nekk di ñaan aussi 4 avril boobu ñuy wax rek combat bi am si. Mm-hmm. dégg di ñaan 4 avril combat bi am.